ak carte postale bi Bessel Basse tey dañuy dem euh, dëkk bu ñu naan Ndioum xam nga euh, ñu ngi fay euh, amal weekend bi festival boo xamee ni daanaka dafay tax nit ñi gën a xam localité boobule alors commune bi nag dafa am histoire mës nga ñu ko nettali mais tey dañ ciy dellu si ay nit yoo xamee ni jot nañu am mës nañu am ay jafe ci wàllu napp ci wàllu mbay ci wàllu koom waaye terewu leen happy li xale yi di wax

Mais pour la petite histoire, nous approchons Baba Lidjoum. Il euh, y avait un oiseau qui était euh, sur un arbre avec son nid. Cet oiseau s'appelait Djoumtan avec son nid. Ils ont dit maintenant qu'on va construire un habitat, on va créer un village. Le nom du village sera Djoum. Alors l'oiseau va porter le nom du, euh, village. C'est comme ça que le nom de Djoum est venu. pour subvenir à leurs besoins depuis longtemps, les habitants pratiquent l'agriculture. Il y a les champs de, de bagnons, il y a des champs d'arachides. De, hein, et quelquefois aussi, ils sont même amenés à aller trouver les hommes au niveau des, des, des périmètres rizicoles. Il y a aussi une moto-pompe qui est là, chez le délégué de Caché, qui n'a pas encore pris activité. Et le lac Doué a toujours joué un rôle important dans l'une des principales activités économiques, la pêche. Il y a qui se pratique au niveau du fleuve. Même si ça a rapporté, ça a beaucoup, actuellement on peut dire que euh, la production a diminué. Aujourd'hui, la production a diminué. Voilà, peut-être par manque euh, de, de, de, de, moyens ou bien tout simplement parce qu'il y a les deux barrages qui sont par exemple à Manandali et à Diamant. et les Djoum font partie des pionniers de la commune. Djoum était habité en premier lieu par ceux qui portent le nom de Ndiaye. Alors, c'est ceux-là qu'on appelle les Essianes. Ils vivaient à Amel et leur principale activité consistait à pratiquer la pêche. Deux personnes leur venues d'Igérie, de Ndjoum Arrivé ici, c'était les Djoum, mes ancêtres, et c'était aussi les Si de jum Alors, nous, notre ancêtre qui était venu avec le Si, il s'appelait Djarnambamba Djoum. Une fois arrivés à Ndjoum, ils ont trouvé ici les gens qui pêchaient. À part la pêche et l'agriculture, Ndjoum se veut culturel et traditionnel. Langa buri ak cet waaw ak yelo yelo yi ñu doon def temps bu jëkk loolu ay nan la ay fecc la. ay fecc la ay fecc la ñu doon fecc carrément ak lamb dañu doon koy jëfandiku lamb dañu koy def carrément nekk suñu suñu suñu cosaan. ne jigéen sànq bi ñu doon euh, di fecc yooyu seen kër yooyu ñoom ay xalam ak jital lañu ñu yor du yore yi xam ne cosaan yi. Ce qui explique sans doute l'engouement suscité quant à l'arrivée du leader du Super Étoile, parrain du festival de Ndioum. C'est un grand événement. Et on profite de cette occasion pour féliciter et remercier le maire, Cheikh Oumar Anne. Celui-là qui, par son honneur, a pris l'initiative de travailler avec le leader Youssou Ndour pour que cet événement puisse avoir lieu le vendredi et le samedi. Auparavant dénommé Ndjoumtane, la localité s'apprête à accueillir ses invités. voilà donc c'est un reportage réalisé par Aïssatou Paye Fall mu ngi ko defee ci euh, français waaye dinañu gën a euh, comprendre sujet bi ak naka euh, la ñu portaleel carte postale bu Ndioum Bessél dem nga fa ba tàyyi c'est vrai qu'on souvent mos nañu seetaan ay reportage yoo def ci horaire bi ci dëkk boobu la di Ndioum muy dëkk bu riche. waaw Pape Cheikh damay féliciter d'abord sax waa Ndioum parce que mm-hmm. dañu amoon jafe-jafe mooy tali bi. Mm-hmm. Eh, bu ñu gisee ci reportage bi tey macha allah yoon bi nekk na yoon boo xam ne mm-hmm. dem la kon loolu rek euh, sant yàlla la parce que digganteem ak Dakar sori na mhm. waaye li ci gën a neex rek mooy que ne njum ay xalpulaar ñoo ñoo fa nekk mu ñu nekk nag ay nit ñoo xam ne ni euh, ci wàllum diine l'islam dafa nekk loo xam ne lu ñu fonk la euh, fonk tamit li nga xamante ne ci wàllum cubballo mhm. parce que boo xoolee njum cubballo yi ñoo fa njëkk a ñëw mhm. bu ñu nee cubballo mooy ay nappkat dëkk bi dafa bëri ndox dafa voilà loolu la ba pare tamit ñu dem tamit ba def li nga xamante Euh, dex bi nga xamante ne dañ fay napp ay jën mhm. di ko togg seen kër mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu naat la mais dëkk bu mun gan tamit mhm. vraiment mhm. kon di wax rek euh, suñu patron moom xam naa ne euh, ak ñi fa nekk xam nañu parce que boo demee pël li mu njëkk xam mooy indi la soow tegal la ndi bu ñu paree tamit ñu indi yekk jox la ñu ne lay dañu xam teraanga dañuy jël nag xar jox la ko parce que ñoom nee nañu ku jóge dëkk ba dëkk nga bàyyi kër bu ne wala dëkk bu ne boo ñëwee te parce nekk da ngay togg mhm. dem yóbbul gan bi nga xamante ne moom moo ñëw ci kër gi ah. kon loolu dafa nekk teranga goo xam ne mhm. euh, vraiment Sénégal kese la am mhm. kon dañuy ñaanal waa Ndioum rek vraiment seen maire bi li mu def initiative bu baax la parce que dëkk yi tamit dañ koy soxla Pape dañuy soxla des fois ku ci mel ni Youssou Ndour wala yeneen artistes yi ñuy mën a déplacé wu comme Dakar ni ñu koy amee ñoom tamit ñu mën a xàppee noonu daal di mën a bég parce que docteur c'est à travers culture ci la ñu mën a jaay dëkk itam waaw mais tax nit mën a dem fu mu taxaw ne Sénégal ñu ne ko Youssou Ndour wala El Hadj Diouf wala Sadio Mané. Mm-hmm. football culture la. Mm-hmm. musique culture la. Mm-hmm. Euh, lan mooy tax tey jii boo àndee ku mel ne Imam Rawane Mbaye nga wàcc Tunisie. nga ne Sénégalais la teraanga boo bëgg mën ko am. lan moo tax parce que culture la ñuy jaay. lan moo tax nit ñi di jël ay avion avion avion di ñëw fii bu gàmmu amee wala ziar wala Daaka. waaw euh, lan moo tax Afrique de l'Ouest gi ku màbb ñëw Kaolack mu nekk un pôle économique. Mhm. aada lañ jaay. Mhm. culture lañ jaay. Mhm. diine lañ jaay. léegi nag su fekkente ne njum ñoom ñoom dañ bokk ci première communauté hors de Dakar bu amoon les 72 heures. ñoom ñoo ko ah, njëkk a def. il faut ñu xam les njum. yàgg loolu. daan nañ ko dégg bu ngeen nekk nekk xale yàgg ngeen loolu yàgg uh-huh. dañuy bokk ci population bi nga xam ne ginnaaw alxuraan bi. Uh-huh. dañu njëkk njëkk Euh, faral seen doom yi pour ñu dem jàng ci école yu mag yi ginnaaw bi ñu làqee alxuraan mhm. loolu moom ma leen permettre bi ñu ñëwaatee fàttewuñ seen bopp mhm. lu ñu am delloo ko njur mhm. gis nga nag xam nga xam nga lan moo tax Youssou Ndour Ismaïla Lo Baaba Maal euh, oustaz Pape Anne boroom xam-xam yi ñi nga xam ne dañu leen di gis ñëpp war a dem ci àll bi réew mi ñëpp dañ ko bokk du waa dakaar rek ñoom Sénégal yamul dakaar donc yow su fekkee ne da nga bëgg nit ñi xam njub euh, postel benn image rek boo ci njum la mu nekk image u bâtiment boo xam ne bâtiment bu am France la dafay anonyme mais gis nga boo posté benn cubaalo buy xeex ak jësit nga jël benn waayu pekkaan nga def ko ci nga posté ko ci vidéo oh, waaw loolu dafay attirer nit ki te dina tax nit ki nit ki dem bët ki dem dama gis benn image bu doy waar masaa yi xam nga masaa yi fu ñu nekk masaa yi ñu nga Kenya ma gis ay masaa yu toog mhm. tubaab tubaab bu xonq cur. di leen wayloo toog di leen jàngal xam nga lu jàngal. birima <laughs> ah. ma toog gis benn polonais. Mm. boo xam ne ma nga ca Pologne ma polonais la je mm-hmm. ma nga ànd maam Góor Jazaka ñu nekk mm-hmm. aéroport. ma mm-hmm. génne vidéo bi jox ko da ko maam Góor déglu mu déglu ne ma Baaba Maal lay ma ne ko xoole mu xool image bu ne ma c'est pas vrai. kii nan la mën a mokkalee Baaba Maal ba suy way soo gëmee ne Baaba Maal ma ne ko Baaba Maal ak Youssou Ndour dañ leen a ko ameel ak Oumou Sy dañ ko ameel gars mhm. dañ leen a ameel ak parce que ñoom ay véritable ambassadeur lañ mhm. réew nag bu fekkente pétrole bi nga fiy soog a ñëw mhm. te pétrole gis nañ ni mu def ci yenn réew yi nanu fexe ba suñ aada bi nekk suñ pétrole ñu jaay ko parce que fi aada mën a àgg am na lu fa mënut a àgg ma toog itam ak tubaab ci dëkk bu ñu naan Hollande di seetaan spectacle boo xamante ni euh, Youssou Ndour moo ko defoon ci album bu mu tuddee woon bi muy euh, way way bi mu euh, jagleel Touba ci biir spectacle affluence bi euh, tubaab bi laaj ma waa kii lan lay woy pourquoi ñuy wone fii moom il était attiré par non seulement li Youssou di way mais ak li ñu wane ci dëkk bi ak ni mu rafetee voilà comme on le voit sur ces images euh, euh, li ma lay wax def na euh, ñetti at boobu ba tey at bu jot daf koy jaral muy ñëw màggalu Touba tuubagul mhm. ah, sax de mais dafay ñëw pour dund nee na li muy gis nii ci image yoo xamante ni mu ngi amee woon ci spectacle Youssou Ndour ak album gis nga pour te dire pour te dire le développement mm. lan moo tax mu am doole nga ancré ko ci culture mm-hmm. lan moo tax mu am doole mooy parce que culture dafay nekk dëkk xam nga Pape mm-hmm. gis nga am na ñaari ñaari détails yu ma la yu ma la bëgg a jox. Mhm. benn bi nit a ngi jógee fi dem France lu muy seeti. Mhm. ñu bëri ñu dem tourisme France lan la ñuy seeti. ay tour culture la ñuy seeti. Mhm. culture la ñuy seeti. aada ak cosaan rek lañ lay wan. chinois yi tey jii. chinois yi tey jii. bu ñu ñëwee jox ñu grand théâtre bi. tabax fi grand théâtre keroog bañ koy ubbi. xam nga lu ñu njëkk a programmé. un spectacle chinois. mais ñun ñu ñëwee ñun bu ñu koy ubbi dañ leen jouer spectacle Mali Sadio. kon loolu porté bi mu am mais am na loo xam ne amu ko. Mm-hmm. lan moo tax Jeux olympiques bu war a ubbeeku ñu commencé par un spectacle. lan moo tax euh, bu fekkente ne da ngay am ay invité jey na ba toujours ngay am accueil culturel. Mm-hmm. parce que da commencé nga wan nit ki loo xam ne jaral na ko ci man de euh, nekk naa Saint-Louis ci pont bi ma tase ñaari tubaab tubaab yi ne ma fan lañ mën a jaayee café Touba. ma leen café Touba amul ci pont bi de ñu jël oto traversé. wàcc ba pont bi jeex. ñu dem jëndi kafe Touba naan ko ñëwaat. ma amaat deuxième expérience koo xam ne dañ ko expliquer les produits locaux. ay ceebu jën ay café Touba et cetera mu bëgg ko découvrir ba mu ñëwee ñëw kook dafa ne du ko naan. ñu ne ko lu tax doo ko naan mu ne moom kafe Touba lañ ko wax kon Touba la koy naane. mu jaral ko mu jógee kooki ñëw ba màggal li ma lay wax ni seede yaa ngi toog di ma xool. ñëw ba naan ko mais kooku kooku. avion bi mu jël wàcc bi mu fi wàcc kër yi mu dëkk bitig yi muy jënd li muy lekk li muy naan mais loolu fan lay des mhm. donc je pense qu'il faut ñu gën a réfléchir aussi mhm. suñu pôle culturel yi mhm. région bu ne ñu xool la fa ne ñu valoriser ko def ko ci internet am un circuit touristique culturel pour mën a jaay suñu réew culture mën na jaay sax diine ndax homme de culture yu mel ni Youssou Ndour ñoo ngi ci on va euh, na noo xool sax euh, li ma seetaanoon ak euh, tubaab bi ci album Égypte la woon Oustaz Papane Youssou mu ngi ci doon way dine nettali euh, jaar-jaaru euh, Cheikhul Khadim ak dëkk bu sell boobule euh, di Touba et pourtant ci ay kanamu tubaab la ko defoon. Tuuba voilà comme ni ngeen ko gisee ci euh, image yooyu la ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Mao Cissé daanaka euh, Suisse France dëkk yëpp dem na nañu fa woy li nga xam ne ni moo jëm ci tarixa yi nekk ci dëkk bi comme quoi culture encore mën na jaay ba jaay valeurs yi nga xamante ni moo ne ci wàllu diine fii ci Sénégal xanaa ku yebbu rek ni Youssou yàlla na fi yàgg te wér waxtaan wi nag li ko sookee ñu fàttaliwaat leen ko mooy festival bi ñuy amal week-end bi ca dëkk Dieynaba Seydou Ba donte. Euh, gëj nga fa mais njum <laughs> moom euh, festival bi ci week-end bi defe naa ku ne euh, di nga gën a mën a xamante ak sa réew ak sa dëkk loolu laa doon wax léegi ma ne la njum soriwul xayra laaw mm. foofu mooy mooy dëkk mamatal mm. donc je pense que nekk genre initiative yi bu ko maire yi am wala ressortissants yi nga xam ne ñoom mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. demee Kaolack nee naa initiative yi nga xamante ni aussi par exemple Serigne Wub mu ngi koy amal ca Kaolack bu keneen doon euh, ful ñu koy def ci dëkk bu nekk dana nekk tourisme culturel boo xamante dana gën ñoŋal dëkk yi. parce que kaw ku dëkkam c'est commune yëpp ko def. pour mhm. chaque année ñu mën kon di gis euh, li nga mhm. xamante commune yi moom la rek daal di def. kon oustaz tournée yi doo ko yemale léegi rek ci ay mhm. États-Unis ak affaire yooyu. il faut nga ah, dugg nag ci réew mi tournée ah, nationale même oustaz mais ngi fanaan kër Bassin. mais liñ moo ëpp liñ dégg Italie moo dégg Kokki di la dégg Njum di la dégg Oréfondé. Gamaaji biir Koungheul biir Thiès. Mhm. laa jógee kër Bassin da ngay romb Kokki. Mhm. xam nga maa ngi naan docteur dinaa fa jaar damay euh, dama mhm. guddee bi may romb Kokki ay une heure demi du matin. damay nga dem kër ci suuf si. fa laa fanaan alaaj damay dem damay dem Sine Makhtar ñoom seen gàmmu la 17 la marché te Koungheul ginnaaw Koungheul mi ngi dëkk maam Maxtaar Penda Si oh, waaw mi ngi noonu euh, dëkk yooyu dëkk yooyu dañoo diggalay tool waaw <laughs> dañoo diggalay tool <laughs> alaaj Pape damay dugg biir Jolof damay dugg biir damay dem Caamen damay dem Nekke damay dem Bëllëxe <laughs> damay dem euh, Yang-Yang damay dem euh, War Xoox macha allah Caamen Jolof ñu ngi lay xaar Caamen Jolof ñu ngi may xaar le 6 avril le 6 avril Caamen Jolof incha allah taala ah dëkk yooyu yëpp alaaj Pape dañ fay dem dañuy dem dugg biir Waalo dañuy dugg biir Waalo eh. dañuy dem ba Roosu Mauritanie ah damay dem ba Dagana. ah ñun kat li ñuy dégg français ak Amérique ak yooyu. Ah, yi maa ngi koy ah kon baax kon <laughs> waaw. yow tamit da nga bëgg a def tournée. tournée culinaire. waaw tournée culinaire oui ah, xam nga ñoom dañoo waa France ça c'est une xam moo jur moo dëgg la waaw culture moo jur moo jur civilisation. Mm-hmm. moo tax euh, euh, yonent Yàlla Idriss mi nga xam ne moom bind moom moo ko njëkk a def. Mm-hmm. Euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu waxee Xasaan ni ko ko. Euh, mënu mënuloo nekk sama secrétaire. Mhm. nekkul tax mooy que ni euh, benn langue nga dégg. Mhm. te pour nga nekk sama secrétaire il faut nga dégg langue langue yu bare bare waaw di nga dégg arabe di dégg français di dégg anglais di dégg chinois di dégg inde. Mhm. Ah, yeneen langue yu bare bari di ko dégg. kon nga xam ne culture euh, li ni ko ni ko docteur décortiqué léegi. mooy dem ba nit xam boppam. te nit nag pour mu xam boppam il faut que mu xam pour mu xam yàlla il faut mu xam boppam man arafa sa bopp. pour nga xam nga xam sa bopp mhm. boo xamee sa bopp xam sa cosaan mhm. te xubbul watani minal iman mhm. euh, bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla alaaj baab léegi ñu ngi wax waxu daara ji ni ko docteur waxee léegi ñuy wax ni am di film yi di yóbbu ci bitim réew ne daara yi ah, euh, sëriñu daara ji ni ñuy def taalibeeg yooyu euh, Mansour Bouna Ndiaye doomu Alburi Ndiaye bàyyam di buur ñu ñëw jox ko turandoom Alaaji Mansour xam nga Alaaji Mansour def daa bàyyi ba añ jot rek mun ko demal te doomu baayam buur la. xam nga lu mu ci namm. mooy toj xolam toj xol bi. da da ci am xale yoo dañu réyoon. ñu yalwaan loo leen. toj pourtant biir daara ji aña nga fa. biir daara ja ceeba nga fa ceree nga fa. mais li tax sëriñu daara yi bokkut a sëriñu daara yi nga xam dañuy dañ commerce. xam nga lu ne. am na lu ca baax mais am na lu ñu ñu ñëw pour yàq ko mm-hmm. mais daara mm-hmm. boo xoolee ñi jaar daara alaaj pap mm-hmm. daan yalwaan tey bu ñu la waxee ni ñii dañoo daan yalwaan nga ni noonu xanaa ñuy jaar ñu ci yalwaan Serigne Boub Serigne Boub mu ngi lay mi nga xool tey boo demoon daaray kokki maam ëmad sax sax loolu ah, yal na yàlla yokk leeram ah fi mu jaar ak fi mu jaar ak ndongo yi mhm. fi mu jaar nga xool tey milliardaires yi nga xam ni mhm. tabax nañu ay immeuble sax ne mhm. jagleen nañ ko daaray kokki mu ne ñoom daan na ci ay yoo xam ne seen i la ci yar boo xamante ni yaa ngi ci ba tey li nga wax ni gi ak daara yeeg ak niñ doon tojee seen xol rejoindre li docteur Massamba Gueye Ibbe euh, sànq ci artu artu bi mu doon artu euh, euh, ndaw ñi surtout ak mag ñi ci defaraat jikko yi ci tali yi ci kër yi ci koñ yi li ñuy dégg ci ay ñaawteef dafa bëri xam naa duñ ci dellu soit mais dafa laale bu baax sax wala juste ak li nga wax ni daara yi am nañu ko solo ci wàllu yarum ndaw ñi ñu àggali tukki yi dem nag dëkk bi nga xam ne ni ndar la nekk sànq ba tey maa ngi koy fàtte waaye bopp coor la tudd ca ndar la ne bu ñu jógee njum kon dañuy dem bopp coor bese waaw Cheikh euh, kon nag euh, li ñuy def rek mooy ñu daal di dem njum euh, waa kay <laughs> daal di dem lapsus révélateur la ko tubaab bi tuddee <laughs> njum la ñu jógee léegi waa léegi kon dañuy daal di dem rek bopp coor Pape Cheikh ñu dem xool nag jafe-jafe yi nga xamante ne waa bopp coor am nañ ko ci wàllum ndox nun li nu gën a métti yëpp dund dund yëpp la nu sa gan jafe ba nu juddoog léegi man maa ngi judd cinquante laa judd 1950. laa judd. boobu ba léegi ba suñu gis noo ngi jooy sama papa di ko jooytu di ko jooytu ba dee ñun ñu ñu koy jooytu ba xam naa daanu dee sax ndox gisuñu ndox. ndox moo nu amee. xoolal lii nu mu mel. léegi xool nga dex gi xoolal kii bi muy ñëw li ma daj. mais ndox kay am na lii du ndox géej gi du ndox wala du ndox bi. du ndox mënu mën a naan. Ah, naan dafa wex. kii mënul naan mënul togg mënul dara su nawet dee ñëw daal ba yàlla indi dex gi mu weex tàll neex. nu profité duy duy duy bi duy bidon yii ak yii gis nga kii bi bidon yi léegi dañoo am heure bu ñu koy duy ndar léegi si xam nga bi xale bii ñëw dafa xuuse dafa am heure bu nga xam ne bu jotee rek booru min wi ngay jógee waat fii dem duy courant gisuñu ko dégguñu amuñu courant dañuy taal sunuy lamp lamp pétrole lañu daan taal ak i sondeel ba léegi moo fi nekk xëy na sax xale yi léegi kurkuri nañu di fortaatu di indi ay salaire ak yooyu muy am si jant bi bu jant bi ki lay jeex na askan woowu yaa ngi leen fekkoon euh, euh, bopp coor ca Ndar waaw Pape Cheikh euh, comme ni ñu ko waxee rek dañu am nag jafe-jafe ndox yoo xam ne lu méttee métti la boo leen fa demee sax da leen di yërëm mhm. parce que bidon yi nga gis ni ñoom déjà pour ñu traverser mhm. dex bi mhm. dafay nekk problème parce que des fois dex bi dafay fees des fois du fees bu feesulee nag xam nga gaal yi mënuñu daw dañuy xaar ba mu fees ñu soog mun a daw Ndar la ñuy demee rooti ji ndox mooy bidon yi nga xamante ne ñu ngi koy gis dem rootee ko Ndar indi ko foofu wala bu ay euh, saan jotee dañuy gas teen yi mooy ci wetu euh, tefes bi noonu mhm. ci géej gi mhm. ñu mën a am ndox gis nga ni ñu ko defee lii jigéen ñi ñoom ñoo koy def mhm. ndox mi nag dafay nekk ndox moo xam ne ndox mu neex la mais nekk ah, ndox mu amul xorom ah? waaw ndox ci wetu voilà ci wetu ah, voilà mu ngi noonu mais nekkul ndox boo xam ne tamit bu sell la euh, ndox mi nekkul ndox moo xam ne bu set la parce que buñ ko jëndee il faut que buñ ko defee nii il faut que ñu filtrer ko pour ñu war ko mën a naan waaye ñoom liñ koy defee na mënuñu ko naan mais dañ koy defee yenn besoin yi nga xamante ne dañ koy am ci biir kër gi mhm. lu ci mel ni fóot wala fobeere mhm. seen jafe-jafe tamit ci wàllum courant mu ngi nekk loo xam ne courant amu fa mhm. donc lu ci mel ni ay lampe pétrole lañ doon utiliser te nee nañu loolu dañu dem tamit ba nga xamante ne da leen indil ay jafe-jafe parce que am na ci kër yoo xam ne dañ ci jot a lakk wala sondeli léegi dañu dem ba xamatuñu nan la ñu war a def moo tax nag ñuy sàkku rek ñu dimbali leen si li nga xamante ne moom mooy wàllum ndox ñu fexe ba ñu am li nga xamante ne moom mooy forage Pape Cheikh toll nii ci ci ci si suñu si ci Sénégal fu mu toll est-ce que jafe-jafe yi war na am ba léegi. oui c'est sûr que warul am. même bu ñu toll woon mu posé mooy nañ gën a góorgóorlu. waaw problème ko amati. actuellement boo jëmee émergence. Mm-hmm. jëm ci kenn xamul waruñu ko am xam nga lu tax. Mm-hmm. xam nga tey bopp coor buñ ne la ba 1951. Mm-hmm. fa lañ doon suul nit ñi. waa kay. bala ñuy lu Caaka Njaay ak ceeb. ñu ne la bopp coor tey ay ni nataal bi ngeen dégg fa lañ ko suul bu el magdaan fa lañ ko suul famille Souran bu mag ba fa lañ leen doon denc ñu ne loolu rek war na tax tey ñu la en fait mémoire la loolu xaw ma ko woon déjà xaar yàlla bopp coor xam nga bu dul woon bu dul woon convoi wu duda bi nga ne dafa dañ doon yóbbu lak fa kon ba tey ji mën nañ jàpp ne fa la ñuy suul donc dafa am événement bu taxoon loolu am kon tey fonk coon dañ ko war a patrimoine <coughs> national. Mhm. léegi su ñu ko considéré comme patrimoine national rek dafay am ay faveur. Mhm. donc man je propose que ñu développer loolu. Mhm. peut-être après en dehors d'ici. y a des pistes de solution. dafa war a nekk ni ñu protéger Gorée noonu lañu ko war a protéger. voilà et je pense qu'au sortir de euh, li euh, Bessel indi euh, xëj na autorités yi. dinañu dégg ba gën a dugg seen loxo ci débat. ñoom ñu waa ci émission bi muy que Sénégal am na parti yoo xam ne amuñu problème ndox si ndox Pape Cheikh mm-hmm. parce que lu ci mel ni dëkk bi firndeel na ko mm-hmm. tey nan nga mën a demee dëkk bu mel nii ay mm-hmm. nit dëkk fa donc mënuñu am ndox amuñu accès ci ndox loolu dafa nekk loo xam ne lu metti la amuñu accès tamit euh, ci courant courant bi mënuñu ko am yeggsiwu fa boo amul courant sax loolu mën nga ko muñ mais lu ci mel ni ndox ndox mi nga xamante ne moom mooy doomu aadama boo ko amulee besoin yu bari yoo xam ne doo ko mën a def réew mi nag réew ku wax lii wax lële am na ñoo xamante ne am nañu fu ñu dëkk mais amuñu ndox amuñu courant am na ñoo xamante ne amuñu fu ñu dëkk amuñu ndox amuñu courant amuñu dara ñii ngi luyaas